Auzu billahi min ashaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim eh, ginnaaw nu yóobeeg siyaar bi ñu ngi ñëw tey ci sunu bindu ci xam say farata tey ñu ñëw ci faratay julli bu nangam farata la ci julli mooy loo xam ne boo ko ci julli gi julli ga du baax julli gi day yàqu ndax boo ko bàyyee julli ga day yàqu loolu lañ tudde faratay julli ndax boo ko bàyyee te dabaataloo ko julli ga day yàqu bu dee faratay julli nag yi indi ci téere bi di tasadu subaan mi ngi toll ci fukk ak juróom quinze kon faratay julli fukk la juróom bi ci njëkk mooy yéene yéene julli yéene jooju farata la ki julliwoon ba pare te yéene wut julli ga du baax bu dee yéene booy tàmbali rek nga koy def booy tàmbali euh, foofu nga yéene yéene mooy fas ci sa xol julli baa jublu ci sa xol julli xam jërtu wax ci wu laame jërul nga wax sa wu laame naa yéene naa julli boo fasee ci sa xol yéene jublu ci sa xol julli rek loolu lañ tuddee yéene bi ñaareel mooy it kabar bi ngay njëkk a def kabar bu njëkk bi ñu ko bu armal kabar boobu moom tamit farata la bu ko ñetteel mooy taxawaayu kabar bi maanaam booy kabar nga taxaw jëmi kabar ba ci boppam maanaam wax allahu akbar kabar maa nga wax allahu akbar kabar boobu farata say loxo ba mu tolloog say nopp la say mbagg moom loolu doon koo taamu rek. booy kàbbar nga yëkkate say loxo loolu moom dañ koo taam waaye jëmmi farata mooy wax ji allahu akbar mooy kàbbar jëmmi kàbbar yi su boppam mooy farata booy kàbbar nga taxaw taxawaay boobu tamit farata la kon boo toogoon kàbbar julli du baax kon jëmmi kàbbar farata la taxawaay bi ngay def farata la taxaw gi ngay taxaw ngir def ko taxaw boobu farata la bi ci bi ko mooy jàng faatiha jàng faatiha farata la ci julli ba tey taxawaayu jàng faatiha booy jàng faate nga taxaw taxaw boobu ngay taxaw booy faate faatiha moom tamit farata la kon jàng faatiha ci bopp mooy alhamdulilah rabbil aalamiin ba mu jeex waa goyla waalin loolu farata la waaye taxaw gi ngay taxaw de ko jàng jëmmi taxaw bi ci boppam farata bi ko juróom-benneel mooy rukkon sëgg jàpp say óom rukkon boobu farata siggi rukkon tamit farata la maa boo rukkonee ba pare nga siggi ba taxaw jonn soog a sujjoot siggi boobu faratala ñu bari loolu duñ ko bàyyi xel dañuy daanaka duñ siggi bu rukkonee rek daanaka dañuy kii rek gaaw sujjootaat déedéet booy rukkonee da ngaa war taxawaat jonn soog a sujjoot kon jëmmi rukkon ci boppam farata la waaye siggi ci bi farata biko ko juróom-ñetteel mooy sujjoot sujjoot mooy teg sa jë ci suuf teg sa jë ci suuf loolu moo tudd sujjoot sujjoot boobu farata la waaye siggi sujjoot bi maana boo sujjootee nga siggi ba toog waaye si siggi sujjoot boobu farata la kon jëmmi sujjoot bi sum farata siggi bi ngay siggi ci sujjoot bi farata la fukkeel mooy yéene roy ci ki lay jiite bu dee dañ lay jiite waaw bu dee maamuun nga dañ lay jiite da nga yéene roy ci ki lay jiite yéene naa roy ci ki may jiite yéene roy loolu mat a bàyyi xel la buñ lay jiite nga yéene roy ci ki lay jiite loolu farata la kon boo taxawoon rek ñëw fekk yu julli nga taxaw ci ginnaawam rek kaabar noonu rek te yéene roy ci moom sa julli du baax da nga yéenee roy ci ki lay jiite bu lay jiite bi ko fukkeel ak benneel mooy toftale julli gi tegale ko maanaam rukkoo safla kàbbar armal jàng faatiha rukkoo sigga rukkoo sujjóot siggi sujjóot ko noonu toftale googu farata la kon boo ñëwoon jàng faatiha ba mu pare bëgg kàbbar boobaa du baax kon toftale gi niñ ko toftalee noonu farata waaye ba tey bokkoon ci farata yi mooy dal maanaam booy julli nga dal bañ di yëngatoog yooyu dal googu farata la kon booy julli di yëngatu di di buuse di dem wala di eh, méng loolu man méng eh, du baax dal gi farata lu mat a bàyyi xel la mooy boo rukkoo da ngaa war ne tekk ba dal soog a siggi boo nga ne tekk ba dal soog a sujjoot ba sujjooti noonu ba bi ko fukkeel ak ñetteel mooy yemoo yemoo mooy say cër yëpp tolloo say cër yëpp tolloo bañ a dëngaloog yooyu waaye ba nu julli dëngalu te mënoon ngaa tollale say cër taxaw joon jub xoj defoo ko eh, bu waa julli ga baax kon dal gi si boppam mooy sa yëpp ne tekk benn cër bañ yëngatu loolu farata la waaye cër yëpp yemoo tamit loolu farata la ñett ñetteel ñeenteel mooy sëlmal wa asalaamu aleykum loolu rek ci farata asalaamu aleykum salma boobu farata la bi ci fukkeel ak juróomeel nag mooy jotaayu sëlmal bi maanaam jotaay bi ngay toog di wax asalaamaaleykum li tàmbalee ci àggi ba ci miim gi nekk ci kum gi mooy asalaamu léema àgg àggoo ba ci kum gi lépp nga toog ko wax ko farata kon boo dee nga àggale taxaw julli ko kon wax asalaamu farata toogaay bi ngay toog di ko wax tamit ba keroog ngay pare ma asalaam ba keroog nga àgg ci kum ga loolu tamit toogaay boobu farata la kon loolu mooy faratay julli muy yéene kàbbar bu njëkk bi ngay njëkk a def taxawaayu kàbbar boobu jàng faatiha taxawaayu jàng faatiha rukon siggir kon sujjóot siggir sujjóot yéene ci ki lay jiite bu dee dañ lay jiite toftale julli gi dal yemoo sëlmal jotaayu sëlmal bi